ñi ngeek euh, Thierno Amadou Diallo Thierno Amadou jàlloo moo nekk ki nga xam ne moom la ñu tuumaal ci euh, mbiru kilifa ne moom moo filmé ki nga xam ne moo di kilifa euh, ba tey jii li ko dal dal ko Thierno bàyyi nañ ko moom génn na am na liberté provisoire léegi Thierno li ma lay laaj moo di est-ce que yow mesuré nga coow li fu mu toll ak ni nga loree ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa ak Simon. waaw Pape Alé maa lay nuyu euh, di la sant di kontaan aussi ci wax bi ñuy waxtaan ni mais yàlla rek moo mën a rek du doomu aadama kenn mënul lor doomu aadama soo jéemee lor doomu aadama tamit day fekk suñu borom bi ànd ci euh, kilifa suma diggante ak moom man moom ci jëm boo xam ne ni aw ma benn intention pour lor kii que ce soit muy kilifa muy keneen parce que man yàlla bindeewu ma noonu loolu ma ma ma leeralal la ko mu leer si yow. waaw loroo ko mais à partir say vidéo la li ko dal dal ko tey ji waaw vidéo yi xam nga xam nga vidéo yi avant tout sax man li ma bëggoon njëkk a def mooy di remercier waa waa Rebeuss ña ma nekkaloon ca ca kaso ba ñu ma gaaw génn la parce que au moins ñooñu xam nañ ma bokk naa ak ñoom ay guddi yoo xam ñoo ko bokk nekk ay journée yoo xam ñoo ko bokk nekk aussi affaire kilifa kilifa sama rakk la sama xame la parce que moom mu ngi naan ay xarit lañ depuis ñu nekk xale non non kilifa ay xame lañ la ay xarit parce que kilifa xaw ma jabaram xaw ma ay doomam mosuma dem ngénteem kilifa cat moo ñu boole cat moo tax ñu xamante bi ñu cat présenté xam waa kër kilifa

kilifa. mais euh, Thierno boo waxee loolu dafa am lu ma lay laaj mais soo xoolee ni nga ko filmé kilifa yëgutoon na ñi nga ko doon filmé. waaw kon boo ma waxee ne buñ ko filmé dafa mel ni da nga làq portable bi di ko filmé. non xam nga loolu xam nga loolu déjà bugguma si woon sax yee yàbbi ndax kilifa porté na plainte hmm? jëlee nañ ma prison yóbbu nañ ma laaj ma. donc loolu bu ma sañoon comme enquête baa ngi en cours ñu ngi def enquête côté boobu ñu bàyyi enquête bi def liggéeyam ba lu ciy leer leer ci mais jóguma pour filmer kilifa pour won ko kii que ce soit amul loolu xalaatuma ko kilifa ci jëm boppam xam na ni man loolu xalaatuma ko. waa léegi Thierno. lolu clip uh-huh. yow ya ko filmé muy ay vidéo privé normalement uh-huh. mais vidéo yoy uh-huh. nan la def ba daanu ci loxo site internet ba site internet bobu diko ko wa lolu nak nag police la liggéey police la parce que bi muy am lolu may won ci kaso bi may won quarantaine aussi aw ma possibilité pour ma wala pour demba nekk naa prison bi ay jour soo ko xam ne yoo affaire yu vidéo génn ndax jour bi ma amee accès pour woote samay frère samay sœur ñoo njëkk a tàkki sama kaw affaire bi métti leen lool ma toog ay guddi yu ma nelawul ndax li vidéo yooyu génn mais nag comme que lii am am na ba pare yàlla def na moom porté na plainte ah, nañ xool rek xool fu muy mujjee xool xool lan la ci ban liggéey la euh, ci police. ci loolu tamit noo Euh, vidéo yi yow mën ngaa waat ne du yow yaa ko joxe parce que ñu bëri ñu ne ci yow ci complot nga bokk. waa xam nga fii nag dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni comme nu ko suñu benn xarit buñ bokkal nekk fële chambre vingt huit <laughs> moom nee na fii kaso la ku mu neex wax lu neex waay wax waaye fii tamit Sénégal lu neex waay wax ndax man jour ba may filmé wala ba mooy wax ak kilifa affaire visa. ma sàmb fekkewul ma demb fekkewul kilifa su demee ba dugg ak man ci loolu xam na ni Thierno mii doful jinne jàpp ko buñ ko fayoon milliard du tax mu jaay ma wala mu sànk lu ma loolu leer na kilifa leer na ko nañ wax na ko waxaat ko ba ci kaso bi loolu lay wax ba ci kaso bi affaire dof ko jaaxal ba léegi lu tax vidéo yi fite génn man nag wut sama preuve pour man pour man pour téye ko pour man waxuma ko pour ma sama wala pour ma demba de ma téye ko pour man man mako xam té lolu wax naa ko police ba ma enquêteur yi wooyee wax naa ko leeralal na len ko ñu nangul ma ko na ñu bañ ma nangul lolu muy dépendre ci appréciation ci enquêteur mais euh, yow yaa ñu wax loolu mais ñu bari ñu ne même euh, li nga xam ne la jàppee mooy cambriolage kër Eliman Lam lañ la jàppee cambriolage kër Eliman Lam boobu ñu ne loolu yëpp plan la boo leen teg pour mën a jot ci kilifa waaw déjà man li ma bëgg la leeral mooy kenn jàpp moom ah kenn jàpp la li oto yu ñu gis rek la non ñu non ma foofu c'est pas du kër Eliman ku xaw ma sax Eliman Lam foofu du kër foofu chantier foofu chantier la donc foofu tamit beaucoup ci avancer quoi parce que bon mu ngi ci loxo yoon ah mu ngi ci loxo yoon donc dossier boobu jeexagul voilà. waaw mais xam nga tey jii lépp bu nekkee ci loxo yoon nga bëgg a leeral askan wi tamit day doy waar nga bëggoo cee sori ñu bari ñu ne lii dal kilifa nii mooy loo xam ne da ngeen ko togg lu yàgg pour yàq deru yanaa maar ak tamit tuumaal kilifa. xam nga Pape xam nga comme li ma la wax rek nee la fii Sénégal Sénégal lu neex waay wax lu neex wax amul problème mais yàlla xam na yeneen bi xam na man xam naa kilifa xam na kilifa xam na. mais ñun sénégalais ump nañu te am na tey jii lu. su su doon yàq der la su doon yàq der la 2011 ba muy neex xaalis bi di daw ci dëkk bi. boobu la seen der doon yàqu mais du jamono yii nii. lan nga bëgg a wax foofu lan nga bëgg a wax foofu. li ma li ma bëgg a wax foofu xam na ñoom kilifa xam na caat xam na bu doon yàq rek la ñoom yàq 2011 boobu Ablaye Wade ba muy neex xam nga Ablaye Wade moom loxo bi dafa gaaw bi muy neex soxla leen ñoom ndax tey bu fi Ablaye di jógee yàlla ak ñoom caat la ñoom kilifa bu doon loolu rek jamono yooyu laa ko doon def. mais jamono yooyu ba tay ji ma ngi sante yalla ma ngi sante yalla andu mak malfaiteur andu mak bandi fréquenté wu mo bandi fréquenté wu mo milieu bandi dew mo boîte yalla ba na mais tier ñu bari dañ lay mhm. tuumal ne yow li la gëna xamé jappon nañ la section recherche ci walu cambriolage loolu mom mhm. jaaxal nañu bari mhm. jappon nañ ci walu cambriolage comme ni ma la xam nga fii am na loo xamante ni du ci mën a sori ndax dafa nekk ci loxoy enquêteur ñuy enquête di enquête buñ enquêté nag seen enquête ba jox ko yoon yoon mooy apprécier ne lii lii la wala lii lii la ku boot ku boot bukki foo jaar ay xaj mbooloo waaye dafa dafa fekk nag ma boot ay bukki waaye mais léegi yow mais léegi <laughs> vidéo yi nan la def ba génn parce que da nga ne enquête la sa portable nekkutoon ak yow wala dañ ko nangu ñu bari ñu ne yow vidéo yi nga jaaye ci li nga xam ne moom sa liberté moom nga jëndee sa liberté waaw sama non mun loolu cest à xam nga aussi nañu waxante dëgg man mënuma jaay ay vidéo wala am ku nekk sama ginnaaw ma yor ay vidéo may nangu di dem kaso magum jëmm laa dofuma ñi wax nii yëpp gënuñ maa bëgg lu neex gën maa bëgg samay mbokk tey bu ma yoroon loolu mu mën ma éviter prison du ma dugg prison wax ji sax du jóg mais loolu amul man vidéo bi muy génn yëguma ko fekkewuma ko maa ngi woon rëbës quarantaine maanaam buñ la jàppee police wala gendarmerie buñ la jàppee jamono Covid bi nii buñ la jàppee yóbbu la prison quarantaine lañ lay yóbbu doo am accès woote doo mën a woote doo mën a gis kenn. sa portable kan moo ko yoroon. en fait xam nga man comme li ma la wax rek wax naa ko enquêteurs yi ba may génn sama kër jawar ak ay doom laa ba dem ci rendez-vous yóbbaale téléphone ba amoon samay vidéo gendarmerie ba ñëwee fekkuñ ci man dara lañ fekku ci man dara maanaam gendarmerie bi ñu jëlee. ma ci auto fekkun ci man téléphone fekkun ci man lenn lañ fekkul ci man donc fa téléphone bi vidéo yi koku génne man mom umbu na ma umbu na ma umbu na ma te bu doon sama sago nak wala bu démb doon tay sumay togo kilifa sa xol duma sax togo mom di wax wax yi ni bu démb doon tay duma tok ak kilifa di wax wax yi bu mako séné séenee sax dinaa taxaw bu mu rom mu ma soog dem parce que li musibe la mujju jur musibe bu reey la mujju jur ci côté ak sama côté suñu famille kenn nelawatul kenn lekkatul kenn naanatul maa ngi sant aussi samay mbokk quoi. mais ci loolu euh, euh, Thierno ma euh, laaj la rek est que yow mbir mi naqadi na dëggantaan est naqadi na la yow. non weesu na naqari weesu na foo ko nat weesu na ko kilifa comme li ma la wax kilifa xam na ma. ba ci kaso bi ba bi ñuy dem police bi ñuy defeere lu rafet la mos wax ci man lu rafet la mos wax ci moom parce que tey booy xool kilifa wax naa ko nee naa man kilifa tey su yoroon sama cinquante millions mu jóg pour nax ma problème bi am poli kilifa bu doxantu woon rek ñëw ne ma grand wala mu woo ma téléphone ne ma grand maa lekk sa xaalis maa tey barke rasulullaay fa lay yem dama koy sax ree parce que xam na ni man xaalis fukkuma kilifa xam na ni xaalis fukkuma doom ñoon ñi ma xam ñëpp xam nañu xaalis fukkuma xaalis yóbbuwuma kenn xamuma fréquenté wuma kenn dewuma kër kenn cinq ans yi benn ñaari njënd laa ci dem juróomi at yi ñaari njënd laa ci dem dewuma boîte wanewuma puukare wanewuma yor naa lii wala ñàkk naa lii non non non man sama famille laa doon lijjanti lijjantiwuma leneen. yow lan nga séqoon ak kilifa affaire trafic la wala dala doon jàppale. non kilifa kilifa xam nga moo tax ma ne aussi kilifa xam nga tamit képp kuñ jiñ dara il faut nga jéem a setal setal nga def nga bañ a def sa position lenn rek lay nekk mooy nga setal sa der kilifa moom xam na xam naa. caat xam na xam naa su doon sama xarit la du ma yëkkati cinq million di ko jox pour man mu dimbale ma moo tukki wala mu dimbale ma mu dimbale sama njaboot ñu tukki parce que man ñaari soxna laa yore kenn ki am na nation am na am na am na séjour kenn ki am na séjour sama beneen jabar bi sama mbokk la dafa waroon jàngi kooku la waroon defaral visa ak sama cousine wu jabar cousine wu Fatou Poulo kooku la waroon defaral ñaar ñooñu la waroon defaral visa kenn ki dafa waroon ànd ak man ak Fatou ak xale yi ñu dem à l'étranger keneen ki dafa waroon jàngi ma yëkkati cinq millions deux millions cinq millions la wax waxu bu ngeen xool sax waxaale wuñ donc ça veut dire que ni xam na xam naa. mais est-ce que yow da ko porter plainte ci loolu da ko porter plainte ci loolu. non loolu loolu après mënuma ci tontu léegi mënuma ci tontu léegi parce que aussi am na benn enquête bu nekk en cours li ma bëgg a wax foofu tamit mooy xam nga du kilifa kese xam nga yaa Simon. lan nga seqoon ak Simon lan nga yaa Simon balaa may wax lu ma seq ak moom d'abord dama bëggoon leeral benn mbir rek xam nga ñun dañoo nekk kaso dañoo nekkoon ci prison bi. maanaam di dégg nit ñi di wax gauche droite voilà Thier dañ ko fay Thier état moo nekk ci ginnaawam cer ma ne leen mais ñii de ñëw ñii xam nañ li ñuy wax man état dina nekk sama ginnaaw sama waajur feebar may toog ci kaso bi nii nii nii nii. mais mujj nañ la libéré mais mujj nañ la libéré moo tax ñu bëri jàpp loolu. kañ lañ ma libéré. mais yow yow am nga liberté provisoire mais kilifa ci boppam. mais sénégalais yëpp di ame mais lu tax ñu bañal ko kilifa. ak aussi ak aussi non dama fay sama avocat sama avocat dama ko fay mu pour mu liggéey. non bu nekkee bu nekkoon avocat rek ñoom kilifa am na ay ponk avocat yu taxaw. waaw xam nga avocat bu ponkal moom avocat moom fi muy ponkalee booy xool kaso bi y' a presque mille et quelques détenus ñu fa nekk mille et ku ci nekk yaa yaa am nañ nañ ay avocat mais bañ fayee seen avocat lañ koy yëgi seen avocat. waaw muy dépendre loolu moo tax non may ma leeral may ma leeral rek. parce que fa laa waroon njëkke sax. ci kaso bi laa waroon njëkke fi ma waroon njëkke ci kaso bi. xamuñ ñu ngi naan juge bi juge ma Samba wala juge ma Demba wala juge ma Maka am na quatre cent dossiers mais juge boo ci gis. avocats yi ñoo leen ëpp dossier foofu kaso bi ñu ngi may dégg waa Rebeuss ñu may dégg bu dee ñu may dégg da ngay sa avocat jour ba ma lekkee sa xaalis jour ba nga koy gëj gis fii am na détenu yi nekk ci biir lu ne la wax avocat yi defuñ seen liggéey. mais Thierno yaa ngi leeral foofu sénégalais ah. dama lay wax li sénégalais yi wax pour nga mën a tontu parce que foofu dañ ne. c'est parce que da nekk en connivence ak état bi bokkul ci complot bu dal kilifa moo tax ñu mën a yolleeku ndànk jox la liberté provisoire xañ ko kilifa. parce que bu nekkee avocat kilifa am na ay avocat yu taxaw. loolu benn ma leeralal la benn affaire gis nga biñ may soog jàpp man premier dossier biñ doon wax ka jël dossier ba jox ko juge bi pour juge bi àtte sama nijaay la. li yaay la ci man sama magu yaay la mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay donc bu ñu wax ay naan dama négocie kon boobu kay du ma dem kaso lan laay lan laay bàyyi ba dugg kaso ba sama dër yàqu may soog a négocier wala nit ay nit di négocier pour ma génn kaso dama def ñoom dañu boole ma constitué parti partie civile ñu nangul ma ko ñoom ñu dugal seen demoon man mané avocat bi xaaral bul dugal bul dugal parce que ñi mosuma bok ak ñom parce que déjà kasso bi ñepp ñu wax mais Thier lutax ñu yow ñu téyel la yow war ñu téye victime nga té aussi mo baña mo baña faté fofu fàtte foofu Simon li ko indi laay bëgg léral leeral Simon man ak moom amuñu ben xaar ma ya par exemple man kilifa dama jékki-jékki ba ma dese jours ba ma jours pour ma jeexal samay deux mois ñibbi samay si sama njaboot n'est-ce ñu jàpp kilifa biñ jàppee kilifa man ñu extraire ma prison ba yóbbu ci kilifa biñ ma yóbbee ci kilifa kilifa nag au mu wax fa di fa waxu ñàkk fayda quoi ay oto ay dugg na fii génn fii man tamit magum jëmm laa ragaluma kenn ku yàlla. aussi ci dëgg laay dox kilifa bu ñëwoon na ma grand bal ma man maa lekk sa xaalis na fi yem barki yeneen bi dafa doon yem kon dossier bi du ak ci fii nii yëpp mais kilifa moo ñëw di wax ay wax yu kenn xamul ma ne ko sama waay yow affaire ma ne ko yow sa waay du affaire oto nañu waxante dëgg si ak si avocat ñoo fi nekk yi saa waxal ni mu demee mu ne ma non non ah dugg na fii génn fii ma ne ko sëñ bi comme que loolu la nag nañ ci dem mais moom rëccu na ko. moom yëfu cuune yooyu moom moo ko def moo tax mbir mi ak si fii mais jour boobu kilifa mënoon la yamale foofu lépp mu yem fa ku nekk dem sa yoon mais aussi nit ñi di wax ay kii moo nekk si ginnaawam dafa négocier penam dafa bëggoon génn prison mais leer na ma ni si moo su ma fa waxee waxam mbir mi su ma fa waxee waxam du ma jógee foofu c'est impossible magum jëmm laa xam naa ni ni yoon bi dox parce que ki passeport si moo bi tee nañ ma ci 2014 def naa ci prison Italie def naa ci prison Tunisie ndax passeport boobu parce que Tunis Air laa jëloon Tunis Air laa jëloon voyage si Simon est-ce que dañ leen waxu Simon wala waxu waxu ca bi ñu jàppee simo bi ñu woowee Simon mu ñëw si moo di wax leneen ay waxu empreinte ak yooyu mais nit ñi dañoo tukki dañu voyagé boo yoree passeport européen yi saa yi saa yi gars yi dañoo xool sa passeport bi nii rek bàyyi la nga am na am na benn ligne ligne bu booy jaar foofu ngay jaar pour mën a romb da ngay romb dem sa yoon ñi am ay ciseaux ñooy ñooy taxaw di rang pour ñu jël seen ay empreinte ak yooyu donc kilifa caat dañ ko naroon a téye caat caat bi tey nii moom mu muy dégg doxul. xam na bu baax la moo nekk suñu diggante. problème bi yëpp xam na bu baax lan moo seq suma diggante ak moom caat biñ ko woowee caat dafa naroon a ñëw man maa déchargé caat caat man maa ko déchargé mais dañ ko naroon a téye gars yi wax ma ne leen voyagé naa ci passeport yu Simon du benn du ñaar du ñett maa ko wax j'assume lu tax ma wax ko c'est pas pour sànk ko moom mais pour ñi di sen conseil yi len di dugal nan len ay no wax len li wala sawaji ah, dafa nek di négocier amna na ku nekk ci ginaawum su don lolo waxu simo du ma ko fa tuddu ma ñibi dama don ñibi bu don waxu kilifa la rek la ñibbi naa wu yaag kon ñu wax bi ni lolo andi simo mais Simon amuñ benn contentieux amuñ lan mom personnellement wax nako grand cher respect la ko ma sa jox ñu waxtan ak ay détenu fofu grand cher respect la ko ma sa jox suma wo ma baña yett moom ci jëm boppam nee na par rapport ak kilifa bi mu doon woo du ko jël parce que coow li yëpp bu agsee fii kilifa dama ko doon woo du jël téléphone am di ma jox ay rendez-vous di ma faussé su ma ko bëggee jot il faut ma jël beneen téléphone woo ko ci mu jël su xamee ni man la mu coupé. waaw mais xam nga lu déclenché mbir yëpp vidéo yi la. vidéo yi nag moom moom lañ bëgg sénégalais yi xam kan moo ko joxe. ba mu dem ci parce que man boo joxul site internet ay vidéo mënu koo génne. non non non site boobu xaw yàlla bi ma tiim seetal nii site boobu jour boobu laa jour boobu laa xam site bi nu mu tudd. parce que eh, man boo xool suma kër ba tey jii lijjanti woo kan moo joxe vidéo yi. mais bañ a lijjanti daa ko lijjanti sëñ bi mais am na loo xam ne doo ko wax man am na loo xam ne doo ko wax. da def comme ñoom niñ doon. comme ni ko moo tax teer nag gars pour ñu setal sa der sa diggante état bi dina jafe. no loolu moom loolu moom fii moom xam nga gars xam faay gars yi fii moom lu jóg ñu ne état enquête bu mu ngi en cours man def naa sama plainte contre x def naa sama plainte contre x nañ ko topp ba xam fu vidéo yi jugee moom kon ne foofu si cat tuuti nga may ma cat moom ci jëmu boppam toog na plateau télé wax ko cat moomu boole ak Simon cat moo indi suma kër Simon cat moo ma présenté Simon sama kër agent Phoenix moo fa nekkoon je paye quatre cent sécurité ñooñu ku fa dugg dinañ enregistrer ce tour ku fa fay gëli dinañ enregistrer sa tur Simon bi muy bi muy ñëw sama kër la ko fa indi woon ak cat ñoom xam nañ man xam naa yàlla xam na donc du fii laay toog tey naan ay non lii moo ko fi indi woon lii moo ko fi indi woon non non non jaru ko. Ah, baax na dañ ko naroon téye dañ ko naroon téye moom tamit. man maa ne enquêteur bi carrément kii yoonam ne ko ci fekkewul tinul loolu tax caat ñi ñun ñu des prison man xamoon naa damay desaat ci kaso bi xamoon naa damay ci kaso bi parce que même prison bi gars yi ñuy wax non dérangé wu la non c'est pas que déra c'est pas ma du question de dérangé wu ma mais ay vidéo fuite nañ ñu nar a jàpp kilifa man may nekk ci biti loolu du ngor yenul maana yenul maana dañu wax noo ne ma ay noo sa famille ma ne leen kilifa dafa am jabar dafa am ñaari jabar ak ay doom man ma am ñaari jabar ak ay doom man la may yëg la kilifa di yëg li kilifa di yëg loolu lay yëg moo tax déggoo leen ma sëqat déggoo leen ma nooyi mais nag dama am avocat dama ko fay dama ko fay deux millions 3 millions la ma jox ko 2 millions mu des 1 million. Euh, dama ne c'est-à-dire li ma bëggee a expliquer du question de xarañte fu avocat laay wax waxewu ma foofu mais dama ne man dama fay sama avocat nekk ci biir kaso bi sama avocat di liggéey ma koy wax lii ak lii ak lii ak lii mais dama ne bu doon nit moo nekk sama ginaaw man ñàkk ma fayda ba nit di nekk sama ginnaaw mooy dugg kaso kon gendarmerie la affaire yi doon yem ma dem ñibbi ñu bañ a waxati sax affaire yu kilifa wala affaire yu keneen. gars dañuy wax ne. cambriolage bi dossier cambriolage bi nga jaayee ñoom kilifa. waaw non non non xam nga loolu moom ay wax la rek loolu moom ay wax la rek loolu moom wax dëgg yàlla ay wax la franchement. waaw Thierno maa ngi lay sant di la gërëm.